wa bi kalaami si sudur al qawmi al muminina muxneen an law mi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu nu sunu borom subhaanahu wa taala julli ci xayri xalqihi sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam njukkal xayri xadimihi seexuna cheikh ahmadou bamba nafaana allah barakaatihi ñu ngi ñaanal cheikh mamadul muntaka sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko noonu lañ koy ñaanal mbokki jurit yëpp di ko ñaanal mbokki taalib yëpp mbokk yi du ma dañ benn yoon saa sune di bakkar fegul ay ñaan mbokk yi nga xam ni dañoo safoo seen télévision As-Samadiyya TV rawatina émission bu am solo bii nga xam ni mooy émission jaar-jaar mbokk yi ni ma leen ko waxee wan ni nga xam ne sunu borom subhaanahu wa taala noonu la waxee woon ni laxat kaana kom fi rasulillahi uswatun xasana loola waral ñu xool kenn ci euh, waa jamono di xool kenn ci yoonu murit di xool kenn koo xam ne exemple la ci mboolem ñi nga xam ne ñoo maasee moom jamono waaye ci gone yi nga xam ne ñoo nekk jamono ngir ñu roy ci jëmm jooju loola waral ñu indil leen émission jaar-jaar ndax nit da dul ñàkk ku mi roy moo tax tey jii mbokk yi am nañ mbégte lool indi leen koo xam ni sunu sëriñ la sunu xarit la sunu wëllëre bu yàgg macha allah muy sëriñ Saalihu Mbakke xasaayit sëriñ Saalihu Mbakke xasaayit nag yaakaar naa ni bu ñu bu ngeen àndeek man incha allahu taala ci émission jaar-jaar. yooyu ma wax yëpp muy ñetti tur yuy woo kenn lu ci nekk dana dana dana dana dana dana firiku muy sëriñ ak saalixu ak xasaayit ñett yooyu yëpp incha allahu taala bu ñu àndandoo yooyu yëpp dana leer ci yéen kon damay bàyyeeg sëriñ saalixu Mbàkke xasida boo ko defee mu nuyoo ak bokki téléspectateur u As-Samadiyya ñu door a ñëw nag ci dëgg-dëgg waxtaan wi te mooy indi ay jaar-jaaram incha allah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ok jërëjëf suñ ko so ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka di sant itam sunu yaakaari teeg ëllëg ki nga xam ne sunu ginnaaw bakkan amuñu dara lu ñuy darloo lu dul moom Seyxuna Ahmad al Xadim kaana lahu bi karamihi Illaahi al Xadim mm-hmm. di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom bàyyi ko fi doon kiimaan ci ñëpp te yokk ak wéram yokk kàttanam yokk ak manam mën naa lii mu naalal borom Tuubaa yëpp àgg fu kawe njort te nu moom ci daraje mbootum xasida yi sëñ Tuubaa yëpp nuyu ak a siyaar itam ak a ñaanal sunu wayjur sunu kilifa sunu sëriñ Cheikh Abdou Samad nga xam ne mooy borom yitte ju kawe ji bëgg sëñ tubaa te ku bëgg ñëpp jariñu ci sëñ ñu ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér ak mu mucc ba yéeneen ci liggéey bi àgg fa kawe njort te nu ànd ko moom jërëjëf suñ koso ñu ngi sant bu baax a baax a baax ci xalaat bi ak yitte ji ak taxawaay bi ndax li la suñu am satu wax ci ne fii nga ne moom nga fi nekkal wax la ba la jumtu ko waaye bi sax moom moom ñoo bokk boroom ndax ñoo bokk kilifteef ku leen yilif loolu lim la ci wax yelloo nga ko yelloo ci sa taxawaay bu rafet ak sa pësteef ak sa yitte ñu lay ñaanal baax suñu borom àggale la fa nga jëm amiin baax jërëjëfate asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa euh, jërëjëf sëriñ Saalihu Mbàkke ñu ngi am mbégte bu baax dalal la ci émission bu am solo bi nga xam ne mooy jaar-jaar mm-hmm. wax naa la léegi ni la concept bi mooy nit da dul ñàkk ku muy roy te bëgg suñu ndawi réew wala sax ndawi àdduna bi di xool ku mel ni yow ñuy roy ci ay jéegoom loola waral ñu indi jaar-jaar yi euh, sëriñ Saliou kii euh, seetaan nga xam yam na ci émission jaar-jaar su bëgg na xam tey sëriñ Saliou maanaam kan lañ ko tuddee kan la kañ la ja gane jamono ñen ñooy ay ñaari waajuram bu góor ak bu jigéen suñ ko sax fi ne dama rus lool te am kersa ndax Euh, damaa gisul dara daal lu ma neex ci sama bopp lu war a tax lii am waaw xam naa loolu sëñ bi doon wax daal bu fekkee daal am na lenn lu ma neex ci sama bopp mooy wóor na ma ne bëgg naa sëñ Tuubaa loolu daal moom neex na ma loolu lool nag xamaatuma ko te jàpp moom mukk ne jaar naa fenn fuñ ma war a mën a roye waaw jàpp ma ko dafa fekk nag ne ginnaaw ndigal la ndigal moom jafe rek te Sëñ Tuubaa nee na woon ndigal du ànd ak lor nee na ndigal ñu ngi mel ne lëndamuk fajar jëlbeen gi dana niru lu compliqué lool waaye da ngeen di leer ba leer nañ te dul ndigal nag leeruk timis la jëlbeen gi dana niru dara uhuh. waaye day mujj lëndam kër ba waaja dootu mën a demati. dëgg la te ab laam. la. waa kay bu dee kan lañ ñu tuddee. Uh-huh. Cheikh Saliou Mbacke moom Cheikhul Khadim. yàlla defal na ma tawfeex it moom ci boppam moom ma tuddal boppam. Uh. Uh, tudde ma boppam. ndeysaan ci ak mu jëm mas naa ko wax ne ko maa ngi sant sama borom lool ndax gis naa ci sama bopp loo xam ne daal. yóbbu na ma ci war a sant yàlla. ndax ñu bari ñee ma te man ñëw ma kenn. xam naa ne nag li ma ko may mooy tudde giñ ma la tudde nga tuddal ma sa bopp. ma ko waxee dana ma alhamdulilah man mii de ci sant yàlla lool. ndeysaan kon sëñ ma tudd. Mhm. sama waajuru góor di Cheikh Mouhamadul Fadal moom Serigne moo ko sëñ Abdou Samad ñoo bokk lépp. ak sëñ Hamsatu sama waajur jigéen it soxna maam Xawa Ñang la tudd di doom ci sëriñ Mouhamadul Mahmoud Ñang ñu fi bàyyi ko bu yàggut te alhamdulilah fii tamit ci Touba laa gane àdduna ci atum 1981 waaw macha hmm. am na solo hmm. bu baax a baax hmm. dafay mel ni ni ma koy faral di waxee rek daal da dugg kon ci aay boo xam ne bu ñu jëleen aay bi rek day mel ni doy na sëkkëroy teef ndax euh, lu ñor Sëriñ Tuubaa ba mu koy ñaan loola loola loola mat naa am mat naa ñaan alxuraan day wax ni wal baladu tayyibun yaxruju nabaatu bi si rabbihi Sëriñ Tuubaa doon ñaan euh, wa sawjatan saalihatan tuinu ala tuqa wal bir yaa te day mel ni lee alxuraan doon wax lii moo koy indi waaye sëñ bi ñaan zoriyatan tayyibatan tujaddidu ndax jënabil Moustapha taj tahidu kon ñu ngi ci sant bu baax a baax ci euh, tawfiix yooyu nga xam ni nit mënu koo defal boppam waaye yàlla lay soob mu mu defal la ko askanoo ci Sëriñ Tuubaa rek day mel ni doy na bu fekkan mën nañ koo tuddee tiitar doy na ko te kenn dox sa digganteek moom muy sëriñ Fallu Soy bu yàlla na sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko àggale ay mébétam ci lislaam ci barke Seexul Xaddim kon euh, dañ lay bàyyi rek nga daal di ñëwal ci tey boo na doon xamal Euh, ci càllaleb ñaari wajur yooyu euh, lan nga nu ci andil ngir ki seetaanit gën a xam sëriñ Saalihu si ñaari càllalaam waaw dee wajuru góor yi Cheikh Mouhamadul Fadal doomi sëriñ Sanay bu la suñu sang bi di doomi Seexul Xadim mhm. xani yoon andi <laughs> ah. mhm. eh, soxna moomi natt Buso ñu mhm. tudd soxna moomi doomi suñ mbàkki kanni Buso la suñ mbàkki kanni doomi suñ Buso bi suñ Buso bi bokk ak soxna jaarale ko mooy waajur sëñ Fallu waaw te bu ko defee kon noonu la demee bu dee soxna moom it waajuram bu jigéen soxna Maguette Touré la tudd. waaye mu ngi bokk ci waa Lappe. waa Lappe sëtub ma xujja maram. macha allah tamit suñu Maxtaar Ndumbe. kokki bu kokki waaw. macha allah. tarkal bu dee waajur wu jigéen ñi. Mhm. doomi sëñ Alhaji Mouhamadul Mahmoud Niang. Mhm. Alhaji Mouhamadul Mahmoud Niang. Mhm. Eh, di doomi suñu Afe Niang. mi nga xam ne mook ko suñu fàllu. ñoo bokk yenn waajur mi soxna Awa Bousso. tey waaw moom moom Alhaji Mouhamadul Mahmoud Niang yaayam waajuram bu jigéen mhm. doomi Maam Mor Jaara la mhm. soxna Aminta mhm. Kanni nga xam ne yaakaar naa ne mooy taw Maam Mor Jaara mooy waajuram bu jigéen masha Allah kon waajur bu jigéen yu it waajuram jigéen maanaam sama maam moom it soxna maam xarit bu la tudd di doomi sëriñ maam ma Buso sëriñ maam ma di doomi sëriñ Jéeme Buso sëñ Jéeme moomu. Mhm. wala boog sëñ Jéeme mooy waajuram wu góor. Mhm. suñ jéem suñ maam maa ko jur suñ maam ma doom suñ bu soobee moo it. macha la tarkala mm-hmm. eh, kon mu ngi noonu day mel ni buñ ko toppee ba ca lawtan gu mujj ga. Mm-hmm. day mel ni yow sa sa waajuru góor mooy sa nijaay. Eh, sa waajuru jigéen mooy sa bàjjan. waaw <laughs> am na solo. Eh, ñu ngi sant bu baax a baax ci càllale gu am solo googu. Mm-hmm. macha allah waaye ginnaaw bu loolu amee nga xam ne sëñ Saliou yàlla tànnal na ko ñaari waajur yu yu yu yoo xam ni mboolem askan yi gën a rafet ci réew mi ci lañ bokk. sëñ Saliou ci ban uh, at ci fàttaliku la la la la tàmbali jàng ak kan moo ko tàmbaleel am njàngum alxuraanam ak it parcours bi mu def ci njàngum alxuraan ak parcours bi mu def ci njàngum xam-xam. ok euh, ci atum 1987. Mhm. ca Korga. Mhm. lañu sëñ Saliou bu dalal. Mhm. sëñ Saliou bu mag. waaw ndeysaan moo ñu dalal am sama rakk bi ñuy wax si Abdou Lahad. mu nekkoon fii ci Munawir Sudur. ak. Euh, sama ñaari baay ñu mhm. doomi Cheikh Abdoul Ahad mhm. suñ xadimul basir ak suñ xadimul noor mhm. euh, ak sëñ Xamsatu doomi sëñ Abdoul Ahad soy bi euh, am na ku ñu wax sëñ Seexuna Gay doomi bàyyi sëñ bàyyi bay Ibra Gay ñëpp xamoon ak sëñ Abdoul Ahad waaw ñooñu daal laa ca laa ca laa ca fàttaliku ci dalandoo waaw ñooñu sëñ am nañ tawféex it mu dalal ñu ca Aliou ja nga xam ne ca la ko sëñ Tuubaa dalaloo. Hmm. moom ak sëñ Modou Moustapha ak bokkam yooyu yëpp. waaw ca la ñu dalale. Hmm. waaw ci weeru koor. Hmm. ci diggante yii rek diggante takkusaan ak timis. macha allah ci la ñu dalal. macha allah. <laughs> tubaarkàlla loolu am na solo 1987. 1987. nga xam ni moom macha allah loolu am na solo lool lool lool lool. Eh, ndax. ni nga ko waxee waxuma la sax doomi Serigne Touba ji la dalal jàng waaye day koo xam ne ku xam Serigne Souhaïbou bu xam ni ci jàng ak jàngale la ko sëñ Touba féetale woon waaw njabootuk Serigne Touba get njabootuk ñi mu bokkal sëñ Touba it bari na ñoo xam ne seen njaboot moo leen jàngal alquran moo leen tarbiyee ba ci seexi sëñ Tuubaa yi loolu lu am solo la mhm. loolu rek jëmmi loolu rek ak barkeelu la waaye amaat tawféexe àll woo jëleen sëriñ Tuubaa dalaloon mhm. ñu dalal leen ci loolu macha allah kon jàpp naa ne nag mbokk yi seetaan kon danañ daal di xam ni kon ndekete mhm. <laughs> ndekete lii ya macha allah am na solo eh, ndax kon bi nga tàmbalee foofu fa nga mokkale wala da ngaa dem ci jeneen daara ok jàng nañ fa ab sëñ bi sax bi ñuy doog a dalal. Mhm. xëy na yërmaane ji. Mhm. booy biir daara ji xam naa métti tuuti. Mhm. Eh, ci biir kees yi lañ doon jànge ndeysaan waaw dañoo dañoo defar ñaari xaaj. benn ñu jox ko suñu ëbboo. doomi suñu laxat la. benn ah, bi suñu am sët man ci doon jànge ci suñu am sët laa bokk nga xam ne baax mm-hmm. da ñu ñuy fere ijji daanaka mm-hmm. suñu am sët moom ñenn ñi mu si sang bi mu suñ sang bi waaw ngi ci biir kër gi ndeysaan di nekk foofu ci jàngukaay bi mm-hmm. ci jàkk bi foofu lañ doon jàngale waaw la ko yàq daal mooy daa am benn bis ay ay midi rek ñu dugg ci biir jàkk ji di nodd suñu tàng ci jër <laughs> taal rajo yi di nodd <laughs> sëñ bi tàng ci jër ca la ñu yóbboo ci bi daara ji <laughs> maanaam ku duggoon ci jàkk di nodd ñun gone yëpp rek xam man naam du man sax waaye ñun ñëpp daal ñëpp yéen taal rajo yi di nodd ñëpp sëñ bi tàng ci yàqal na leen de <laughs> macha allah loolu am na solo. <laughs> Euh, ndax ci loolu laa doon bëgg a ñëw damaa bëgg a wax ni <laughs> maanaam foofa maam fi mu toll ak sët. ndax yéen loolu dalal na leen wala waaye mel na tontu bi. xam nga suñu sang bi nag dafa mel ne li ma seetloon ci moom mooy. waaw ku mënoon a kopp koppal gone nii la ak yërëm yërmaane ji foo ko takk rek weesu na ko. Mm-hmm. waaye nag bis boo dalee moom day mel ne loolu day jeex na. <laughs> loola jeex na waaw loolu moom jeex na moom doo doo gisati moom boo nekk tollee ci yar ak jàng. Uh-huh. moom day mel ne xamatu la rek. macha allah ba loolu jàll. ci <laughs> alhamdulilah kon ndax naa loolu mooy dëppoog li sëñ Tuubaa waxal. waaw ni ni ni bu tolloo ci yar ku ko jox. ku ko jox nguur dajeeg buur. waaw <laughs> macha allah. waaw am na solo. waaw am na solo macha allah. loolu moom da ko doon jëfe bu wér. waaw uh-huh. bu uh-huh. amatu bu amagut juróom-ñaari at buur la. waaw ku ko def buur dajeeg buur. bu ko xasee am doonatul buur mhm. ku ko def buur dajeeg buur dajeeg buur bu amee fukki at ak juróom-ñett mhm. nga bakkoog buur lu mu defati dajeeg buur fekk na boo xam ne li mu war xam ne dëgg la taargàlla <laughs> alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Serigne Saliou mhm. kon ginnaaw boo xamante ne yàlla dogal na ngeen jóge ci euh, kees gi euh, ñëw ba tey da ngeen a si suñu am sa di jàng wala da ngeen a nekk ci leen booba dañoo dem ci biir daara ja booba suñu Abdou Lahad Jaxate ak suñu Mahmoudoun Bousso ñii fa nekk ba tey ñoom ñoo yor jëmmi daara ja doon ñaari kuréel ñeen ñi si nekk ci kilifteef ak suñu lan ñeen ñi nekk ci kilifteef ak suñu ndax ndax ñu nekk booba li ëpp ci mbàkk mbàkk yi li ci ëpp ci seen laxat jaxat la ñuy nekk lañ doon moom nag mooy yor kilifteef bi waaye day amaat ay jàngalekat ay jàngalekat yu koy jàppale ci njàng fa lañ nekk ab diir ba yàlla dogal suñu xam satu di sanc këram am mook suñu abo suñu aboom suñu abo sax ñoom sañc nañ ab biir ñun ñu des nekk ci daara ja benn bis suñ fal di dem ci suñ saay bi ñu jaaree noonu ci ci ci kees gu njëkk bi ñu taxaw ci buntu man ak sama rakk jooju ma suñu abo laxat di yuuxu ko yuuxu yoo ko dégg nga xam dañoo ba ba mu dégg ñu ñëw boobu am fenêtre bu ndaw moo nekk ci bunt daara mhm. boobu dañuy tëj daara ji ba noppi xaw naa metti daal mhm. ñu ñu ne ko dañoo bëggoon nga waxal ñu sëñ bi mu génn ñu fii ndax fii daa metti mooy mhm. baax na dinaa ko wax da wax ko sëñ bi sëñ bi sëñ Fallou seen waajur nga ko waaw ba mu wax ko sëñ bi sëñ ne ko waaw mën nañoo mën nañoo kii daal di daal di jël jox ma sëñ Abo jël sëñ Abdou Lahad sama rakk jox ko sëñ Abo waaw. ndeysaan waaw <laughs> ci noonu lañ génne daara ja dem foofu. <laughs> te suñu boobu nekk nañ fa ab biir ba bi suñu laxaat bi wàcc daal fa la ñu fekk. 89 <laughs> boobu. gannaaw bi nag la ma suñ euh, fàllu. ñu euh, ne ma suñ sang bu gannaaw bi sax la ma ko leeral ne ma suñ sang ma ne ko jox ko jox ko turandoom. waaw dem sëñ Saliou. sëñ Saliou Mbacke. waaw ah. waaw. ndeysaan. waaw. Mhm. sëñ Saliou moom. Mhm. diggante boobu bépp daal fa nekk ba. Mhm. booba ci jan daara nga nekk. nekk nañ njurul. jàpp ndal. ak ñaaru. ak tubaa xel comme bañ koy doog a sant ko njëkk a sant. ca 93 ba. Mm. gannaaw mu ñëw ñëw Ndoka. ndookaa nag lañ jógee ñëw sëñ bi joxewaat ndigal ma ñëw ci sëñam sax 94. 94 waaw. waaw macha allah boobu yaa ngi boole njàngum alxuraan man njàngum xam-xam. waaw mais déedéet ma ñëwee ci sëñam sa nag. Mhm. fa laa àggale njàngum alxuraan doog nag. xam-xam yi xam yi booba si ñoom surtout mu ngi doog a sanc daaraam jee mhm. di jaalibatu waaw mhm. ko sanc ay boore ay quatre-vingt-quinze quatre mhm. boobu moo moom ci mooy jàngaleel boppam sax ci njëlbeen la ñu ay tey tasawudi si xaar ak jooxul na fii sax yooyu yëpp moo ñu ko jàngal ba ci risaala gannaaw bi la doog jël ab jàngalekat mu di fa ñëw di ñu jàngal si nga xam day ñëw bu jàngalee ba noppi dellu man ak suñu Abdoulahat moom. macha allah suñu mbokk yoo fa newoon. jërëjëf sëriñ Saliou ci parcours bu am solo boobu waaye kon sëriñ Saliou ku wax euh, parcours yi nga jaar. ndax euh, day mel ni euh, sancu xel koom moom wax nga ko léegi bokk nga ci. diggante yooyu nga jaar ci ci daara yi nga xamante ne mooy daara jaaree njàngaan yi. ndax daara yi day ànd ak daara jàng la waaye ju ànd ak tërbiya. Mhm. foofu sëriñ Saliou lan la fi jànkoonteel ci loo xam ne ab daa ab donga dina ko jànkoonteel ci daara. waaw bu dee si Sëñ Saliou nag li ci ëpp sëñ bi moom daf daa tere ñuy dem taxu ba ndeysaan mooy fu ñu fi mas jaar daf ci insisté lool sax yoo ñu kenn liggéey loolu moom da ko daa tere ñi da ko daa tere ñu bokk ci sëñ bi ni dawul nangu ñu ñu ñu dem ci liggéey daa wax ne jàng la def lool macha allah léeg-léeg nag du tee sa coobare nag loo ci defal sa bopp. du ko bañ. boobee daanañ ko daanañ ko def. dem ci kii léeg-léeg it yàlla nattu la nga nekk ci jëwriñ joo xam ne ba tey. waaw du nangoo jëfe ndigal loolu wala yu dem noonu waaye du ñàkk da ciy am. waaye diggante boobu daal da ngeen doon jàng di jàngale. waaw jàng yooyu rek moom moo ci ndax. man maa fa jiitu waaye gannaaw bi bi suñu wootee woote bu yaatu boobu. waaw. Mm. suñ fàllu dafa jël mboolem njabootam gépp yóbbu leen ci daara ji na ma nekk macha ba bañ ñëwee it mhm. sama mag suñ ji moo continué di ñu jàngal mhm. ak sama rakk yi ñu fa nekka ndooloon mhm. eh, nekk fa diirub moom 92 daal yaakaar naa ba 98. moom ci loxo yi suñu seetlu na ne. macha allah te boobu fekk na am njàngam àgg na boobu doon nañ jàngale ak di. macha allah. jàngale xam-xam taarkalla jërëjëf Serigne Saliou ci parcours bu am solo boobu mhm. euh, ci loxo yu mat yooyu nga xam naka jekk ci nga jaar mhm. Ah, te mooy daaree Serigne Souhaïbou ak kilifa yu baax yu am solo yooyu daf yoroon waaye noonu nga duggee ci loxo loxoy Serigne Saliou ba ci parcours bu am solo boobu ba mu jëlaat la moom Serigne Saliou waaw ci ndigalam la ci ndigalam 94 ñëwaat Serigne Amsa mm-hmm. macha allah muy lu am solo mm-hmm. euh, mu mel ni kon ci daaree Serigne Hamsatou Dialibatoul fa nga mottalee alluwa ji door a mm-hmm. door a door a door a wàcc waaw léegi Serigne Hamsatou moom diirub 94 ba ba 2000 ba 2004 daal. moom li wóor moom mooy. tàqale ko moom moom benn yoon. macha allah dimbali nañu lool ndax li ñuy wax tërbiya dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. ci moom ci moom lañ ko defee. ci jamono bi ngeen nekkee ci daara ji. boobu it fekk na moom ci boobu yàlla da koo defal tawfeex ci yar. yar ak jubbanti nit. ndax lim laaj yépp da koy def. mooy du dem fenn. du génn. du dem fenn moo ñu jàngalal boppam uh-huh. di ñu tërbiyaal boppam uh-huh. guddi gi sax du nangu ngay tëdd di nelaw ku ne moom ngay fanaana lu bët set bu xëyee bëtam du tegg ko ci yow uh, loo jox ay sas loo noppi dem ci la neen <laughs> loolu moom yàlla da ko ci may mayin woo xam ne uh-huh. ba noppi mu ànd ak di dund nag Sëñ Tuubaa dundin woo xam ne boo nekkee moom faaw da lay suuf ba sa xel du mën a nekkat ci leneen lu dul sëñ bi wax nga lu am solo waaw ndax dama dama seetlu ci moom mhm. forbët sax bu ko defoon di nelaw mhm. bu wëlbati ko da ngay dégg muy tudd sëñ te loolu moom seetlu naa ko ci moom baax alhamdulilah te fanaan naa moom ba tey daanaka diir boobu moom tàqaliwu moom mhm. moom nga xam ne daal doo toog benn yoon loxoy neen waaw parce que fa bëgg sëñ Tuubaa yittewoo ko moom ci sëñam sëf laa ko jëlee ci alhamdulilah rabbil alamin tarkalla jërëjëf léeg-léeg sax ma wax ko ko dama ko daan mere sax xam naa booba am na ñàkku daal lum lu ko sëñ Tuubaa liggéeyloo ci man wala lu mu bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa ci man ndax loolu nekk naa faak samay morom waaye day mel ne man rek la singili <laughs> teg la sob waaw <laughs> baax a baax a baax tubaarkal la waaw léeg-léeg yi daana lu mel noonu <laughs> lu mel ne xëy na macha allah waajtaay bi waaw am na lu mu doon waajal daal macha allah eh, jërëjëf mm. Serigne Saliou Mbacké xam naa lii moom bu fekkan mm-hmm. émission bi comme ni ñu koy waxee day am kuy seere loolu mën naa koo seere mm-hmm. eh, wax naa ko sax ci ay émission lu bare bare mm-hmm. ku sant Mbacké koo xam ne daa takk ndiggam summi mbaxanaam di jàng xësidee sëñ Tuubaa yaay ñaareelu ci ku ma ko gis si sëñ xaadim ku ñox sëñ xaadim Mbàkke xasaayit muy sëtu sëñ sàmba dañoo teel a jaxasoo lool bi ma bi ma ñëwee ci dëkk moom laa jëkk a gis mu def ko waaye yaay ñaareelu ku ma gis mu def ko ci njàngum xasida te it jamono ba nga koy defit nag muy jamono boo xamante ni eh, xawan naa xawan naa jafe ndax maa ngi koy fàttaliku xam naa yow loolu mën naa am doo ko bàyyi xel ndax booba yàgg na maa ngi fàttaliku ca jamono yii ngay wax at yii soriwul bi nga duggee ndakaaru nga xam ne jamono booba yaa gën a bari sab dem côté aéroport jëm noona maa ngi koy fàttaliku nga xam ne boo ñëwee da ngay dugg ci kuréel bi jàng. sëñ Fallou googu nekk ci yoo waaw foofu la ne woon ci euh, yoonu aéroport waaw. waaw ah, mi ngi noonu jamono booba jamono booba. Mhm. lañ la xaman ngay yëngu ci xaside yi kon xaside yi ndax da nga ko da tàggatu ci teel ci biir daara ji wala da ngaa jikki rek am ci bëgg nekk ci waaw xaside yi moom ñoo uh-huh. ngi koy sante sama waajur suñu fàllu uh-huh. ndax li jiitu daal dal jàng uh-huh. suñu fàllu ci boppam daa amoon ak kuréel boo xam ne ay doomam ñu ngi ci woon suñu jiili sama mag ñu ngi ci woon ak ñeneen ñuñ ko jox ñun ñu dee doomi mbokkam mel ne suñu Abdoulahad Bousso ñenn ñi di ab jarbaatam ku mel ne suñ Moustapha mu suñ Mor May ak ñeneen mu di leen bindal xasida ci àlliwa di leen ko mokkalloo bu du jotee ñu taxaw di ko yëkkati kuréel boobu mooy dox ba ci quinze safar nii bi ngeen di def wala waaw waaw waaw mën naa mën naa dox waaye nag bu dee ca booba moom suñ jili rek moo ca bokkoon uh-huh. suñ jili mu nga xam ne mooy ab paawam uh-huh. ndax loolu li tax ma di ko fàttali mooy ñii seetaan uh, télévision Asamadia uh-huh. ñàkkul seetaan nañ uh, quinze safar bi nga xamante ne ñëw nañ mboolem njabootu suñ fal soñ bu bi nga xam ñii ay sëtam lan ñii ay doomam lan àndandoo def benn kuréel loolu tax may may may dugalaale loolu foofu loolu nag moom bari na ay turi xasida yoo xam ne ba uh-huh. ma koy xam dalagumaa jàng dalagumaa jàng ndax suñ sol boobu dangaa toog ci lal bi uh-huh. ñu taxaw ne di yëkkati uh-huh. xasida guñ jeexal moo leen wax gën ca war a te benn mu ne jàng leen yaasal bu saaraati yaa xayra dayfin busra lana ahbab yooyu yëpp nga xam dañ ko daa toppandoo nii. Uh-huh. jàng leen nangam. Uh-huh. waaw ci lañ ci lañ ko xamee benn nga xam ne boobu li nga doon doon gone da gone lu muy dégg saa ak di ko kii day day tàmbali di ko uh-huh. wayantoog yooyu la ca dolli ko waat it ñu dem daara suñu sali daara suñu sali moom moom jàng xasida ñoo ànd ñoo ànd waaw ñu dem faaw nga kii ko yàlla defal ma ci tawfeex ma teel koo bëgg ba noppi teel cee teel koo man maa ngi fàttaliku ba sëñ Murtala ñëwee di léemu si ko uh-huh. boobu kuréel yéen doon jàng te uh-huh. ña ca doon dëbbe ci laa bokk ndeysaan ndeysaan booba xam naa ay fukki am uh-huh. waaw loolu bi ñëwaatee ba ci sëñ am satu am ci yitte lool waaw tam ñor ko mm-hmm. nga xam ne booba jamono kuréel bi nga xam ne moom la moom la ñuy jàng daanaka man ak suñ seex sama rek rek lay waaw guddi gi dañuy jàng bu ñu jàngut suñ bi laajte bu ñu tey jàng gannaaw gee yéen ñaar rek waaw dañuy jàng ba mu guddi uh-huh. bu ñu jullee fajar uh-huh. jàngaat si macha allah kon dafa mel ni li ma doon uh, question bi ma doon bëgg a xaw naa ñëwaale foofu waaw mooy uh, sëñ Saliou dañoo gis mu jekk lool njàngum mag ñi uh-huh. <laughs> loolu loolu ndax sëñ Saliou da ko daan déglu ci ay kaset wala ndax sëñ Saliou da ko daan répété foofa ca bam fa bam nekkee foofa ca daara ji waaw répété nag xam nga uh-huh. ñaare bu dee waa daara sëñ Saliou ngay jaar ñoom duñ ko faral def uh-huh. moom li ñuy def mooy dangay mokkal uh-huh. parce que bu gu jot nga taxaw yëkkati li nga xam ni kon day mel ni mokkal nga yow daaj yi bu yàgg te ràññeegoo ko ba xam waaw li ci ëpp nag loolu la léegi nag bi ñëwee ba ci daara sëñ am sëtu nag ci lañ tàmbali di gëstu njàngum mag ñi band di ko déglu déglu bu wóor a wóor suñ bi am ci yitte léeg-léeg mu woolu suñ seex gay may waaw mu ñëw fa waxtaanal ñu ci suñ may <laughs> leeral ñu yenn daaji ñuy wut band yi nag di ko déglu déglu bu wóor foofu nag nga xam ne dañ koy topp toppin woo xam ne suñ may buy jàng fu mu ne sëqate sax waaw dañ koy dañ koy ah, loolu kay moom fi ne ni boo xoolee <laughs> uh-huh. njàng mi nga xam ne moom lañ jàngoon ko soxna Fatou Dia. waaw waaw. bande bi day dagg. waaw ndax boobu ay disque lañ daa. lañ daan yor day dagg fenn. waaw bi ñëwee ba jàng fossi ba ci yaa Umar Wahil Maliki. waaw dañ ko soppi daaj bu njëkk bi. waaw waaye kaset bi dafa dagg ba indiwul daaj bi. waaw. Eh, bi ñëwee ci Ibnu Kila. waaw di Xaaliki uh-huh. ci la ñëwaat. waaye teewul ñun bu ñuy jàng ba es foofu. Uh-huh. noonu sax dañ koy indi. nga xam ne bu ñuy jàng ba es dañuy ibnu kila daal di jàll fi kaset bi dagg sax dañ koy indi ci niñ ko daa dégloo rek laa lay wax dëgg la yëkkati yeeg fi muy wàcceeg yëpp fi muy saqal eh, yi sax mhm. dañ koy indaale nga xam ne nga xam ne foofu bëgg naa fi ay leeral maanaam sëñ sëñ mayit ci njàng waa kër sëñ ma sàmba yii mhm. da cee dugg ba ràññeeku ñu soppi loolu ñu dindi loolu tudde ko sëñ Mayib wala sëñ Mayib daaj yi mu daajalan boppam rek nga xam ne moom la rajas moom lañu tudde sëñ Mayib sëñ Mayib daa am tawfeex ci sëñ bi waaw tawfeex ji mooy uh-huh. baayam da ko jox sëñ bi te jamono yi mu nekkee gànnaar uh-huh. nee na da ko booleeg fanweeri dërëm yu gudd uh-huh. ako fas mu ak Mm-hmm. fekk sëñ bi foofu maa ko man kat seet naa ba xam ne mm-hmm. yaa mat a ñaqal yaa mat ñukkal mm-hmm. yaa mat sa alal yaa mat a ñaqal yaa mat a ñukkal yaa mat a sa alal ngir yow sëy ko te mënatumaa ñukk bay ñàkk amatuma yi lu may waaye kii sama doom la moom a gënal ci samay doom sëy jox la ko jox mutlaq bu bu bu am néeg doon tàkk sama kaw sax bu ma dimbali si. amul sa digal. la ilaha illallah. ñu ne ko yow moom bàyyi la ko nga di mu ne ko aawu Mbàkke da ngaa mat a bàyyi la ko. ndax <laughs> xaw ma jan jamono waaye ji ku dem àjjana yaa ko fa yóbbu ku dem sawara da nga koo seetaan. la ilaha illallah. sëñ bi téye ko ab diir yabal ko ci sëñ ndaam. Uh-huh. ngir mu gën a seetal ay arafam. xam naa uh-huh. boobu bëgg na koo liggéeyloo ci xasida yi. Uh-huh. mu ne fa. ba yàlla dogal. cheikh Mouhamadul Mourtada. Uh-huh. moom cheikhul Xadim. Uh-huh. bi mu gënee àdduna. Uh-huh. moom la suñu daam mu dem di ko waxi sëñ bi. ndeysaan moom suñu yëpp. si mu ñëwee. si jotaay bi sëñ ku fi mokkal xasida ak xaama dag sa ñëpp na teg mu dee kim den loon ne ko mokkal naa ko sëñ bi ne kooko ne sëñ bi ndonga liy ndaam de nee na na ko sëñ bi ne jug wax ko xaama dag sa mooy gën xasida xam naa buñ ko tënkalee damaa ah, xamul nag gan la ci dëgg dëgg dëgg mm-hmm. waaw <laughs> nee na mu ne ko jugal wax ko mu jug yëkkati ko mu àgg mm-hmm. sëñ bi ko yow de mën ngaa ànd ak Ibra Ibra mm-hmm. nga ànd ak Ibra Bouba waaw Ibra Bouba boobu moo jiite mag waaye waxaatu ko dara waaw bi waxtoon jotee mu dellu ndaam bu sëñ bi ubbiwaatee di ko laaj ñu ko dellu na mu ne ko ubbi ñu ñëwee moo joxe ndigal mu bokk ci keneen ndax kuréel bi du mhm. caagi na ku ca bokk rek sëñ bee la tànn mhm. waaye ñu ci ëpp sëñ Masamba moo leen daa sélectionné mhm. di xool ñi gën a neex baata bi waaye jëmbi sëñ may moom sëñ bee ko ci ndax doonu fàttali tuuti ñu barkeelu ko sëñ may ci ñett biir rek <laughs> ñett biir rek ñu fàttali man dama ko mënoon loolu <laughs> kàlla midaadi wa aqlaami liman sax saxal yamma كما زحزح الشيطان والجهل والقماء مدادي وأقلامي لمن زحزح اليماء كما زحزح الشيطان والجهل والقماء bokk na ci xeeti njàngeen suñu ma yëpp moom wax lu weer lay jiital ci way wax lu wér <laughs> ndax xam na ni mu ñore woon sëñ bi <laughs> buy wax day indi li mu a indi. Mhm. ni mu ko war a indee. Mhm. door na waay buy waay doo ko. door na waay waaw ci daaneel bi ci ëpp ci daaneel bi rek lay ko. lay waay waaye di wax midaadi wa aqlaami liman sa saxal yamma. waaw foo am na sàdd gu fi ne. waaw xam nga sax dëgg ne sàdd gi. Mhm. ñàkk koo indi. wóor la muy la muy yàq. mooy boo fee xidmati ramma. waaw ramma boo nee ramma. wëlbati wax ji ngay def. carrément. ma tax dégg naa ñu ne sax am na ko doon jàng ci wetu sëñ bi mu ko waxee sëñ bi gën a tëll bunt bi ne ko mas naa koo gis ma ko jëmm liggéey ab jiyam gone gu ndaw de ko sànni illa rama sànni na uh-huh. voilà bokkul ak ramma ramma yéenal na lay firi <laughs> macha allah na ci xeeti uh-huh. am na solo macha allah mm-hmm. léegi nag xam nga uh-huh. njàng moom noonu ma la wa naka jëkk dama ko bëggoon digal ko waaye nag gannaaw bi bi xeeti jumtuwaay yi amee nag uh-huh. ci la siiw uh-huh. fekk na sax mu nekkoon ci lu yàgg dëgg la dëgg la siiw lu mel ne xeeti bi si xasida yi uh-huh, ak Touba TV boo fi am bu sax la tàmbali siiw <laughs> ak sun ngonte waaw waaw mu nga xeet yu <laughs> uh, na solo xanaa da nga ci dellu si sax ndax loolu yu bari nag waaw waaw moom laa moom laa moom bëgg a ñëw <laughs> mm. uh, ci loolu laay bëgg a ñëwaat sax ci ñaareel laaj bi ndax ni ma ko waxee wax dëgg yàlla loolu da doon gan da doon da doon da gan ci yoon wi ndax euh, ni ma ko waxee booba dañ leen di lim bariwul te booba ni ma ko waxee comme xëy na yow say jéego ni mu baree woon ngay dem fu baree bare xëy na booba suñu xaadim mi may wax booba moom xëy na jéegoom soreegul woon lool lool moo tax loolu euh, ndax jànkonte woo ci ay ay ay ay coono yu baree baree bare waaw bi ñuy doog a tàmbali moom bari na lool sax nag ñu ñu ñu ma ko doon tere boobee it xëy na bëggal ma gàmm rek la ak mhm. ragal ak cat ak xeet yu demee noonu mhm. waaw ñu bari nag ñu ma doon wax ne ma naa ko naa ko naa ko bàyyi mhm. booba lool la lool lool lool lool daal laa yaakaar waaw ndax daa ko fesal sax ci biir wax ji waaye booba it man fekk na ma am ci yéene nag pas-pasu liggéeyal ci Sëñ Tuubaa bu <laughs> waaw bi wax ji bare ba bare ba bare nag bëggoon naa ko bàyyi nag demoon naa ba dogu ci ne dama koy bàyyi waaye <laughs> dama gént sëñ gént gu leer nañ nañ nañ nañ am lu ma wax te <laughs> mu jëntal ga ba muy jaaxal ne ma demal yëkkati ma dégg te ma jógee di yëkkati nag laa yeewu benn bis ñu ñëw fii ci sëñ Saliou ak guddi maa ngi ànd ak ku ñuy wax suñu Yuusu Jaay tari bi suñu am sell suñu sony biñ nuyoo tuuti sëñ bi daan ne nañ ma may ñëpp bi ñëpp yi jóg may jóg mu ne ma toogal waxuma la maag sëñ sëñ Ahmed Gueye mu sëñ Moussa Alima Gueye kër ñoo fa nekk waaw sëñ bi tàmbali di waxtaan foofu rek sama xel dem ci gént gi ma géntal ma nettali ko waaye dama àggal rek mu ne ma xii loolu di du gént demal def ko ma dégg gaaw waaw ci mujj gi sax daana fa dem lu bari di nag moo a ci gën a soññ nag ko daaj bi nga ko daajalan jàngalan wala xasida yu bari nga fa jàng waaw boobu li ci ëpp nag daanaa faral di def mhm. nooru daal yi ma di di ko def ay xaaj waaw suma ma yëkkatee lii tey ba léegi ma yëkkatee maa ngi fàttaliku baat bi ma mujj dégg ci moom ci ak mujjam moom suñ sali boo damaa ñëw di ko nuyu fekk fa moom rek ak suñ Modou Gueye mu mhm. toog mhm. ni ma mu ne kooku mu ne ko Saliou Mbacke mel na da koo dégg suñu Modou Gueye ne ko Saliou suñ Fallou Sany bu la mu ne ah sama jàngkat bi. ndeysaan ndeysaan tarkal la kay jërëjëf macha allah am na solo Serigne Saliou mm-hmm. mu mel ne Serigne Saliou mm-hmm. euh, ndax loolu xasida daf koy faral di def sëñ Saliou wut fexe na ba am daaju boppam am na daaj yoo xam ne si ni ku ko dégg rek day xam ne lii moom bu fekkee am na ñu koy jàngaat ginnaaw bi sëñ Saliou moo ko moo ko moo ko jàng loolu nan la la dikkee da ngaa yor daaj ba yàgg mu dikkal la wa ilaa nan la dikkee wa ilaa ndax sax daaju mag la boo xam ne xëy na ñoo ko wala yooyu ndax yu bare bare am na yaxi xeetu yax yoo xam ne boo ko déggee da nga xam lii mhm. sëñ woo ko jàngoon mhm. Mhm. du ma ñemee nag ne sama daaju bopp la ñaare damay wax ne dégg ma ko fen daal. waaw waaw gëm ne suñ tubaa rek moo amul daaj. damaa ma suñ Modou Maam Ñaŋ. loolu ko yàlla dolli. amiin amiin leer dafa maa nettali ma suñ Abdou Lahad nee ko. waaw sëriñ bi mu nekkee ci géej gi. Mhm. juróomi at yi am juróom ñaari at yi mu am gabon mhm. juróomi at yi moom dañ ko koo tumuraanka dañ koo sànni ci tefes rek. la ilaha at yëpp am néeg tiimu ko. ci ak taatu garab lay ne di yàndoo bind bind mi it da koy booleeg di tay alxuraan ci kaw moo tax mu ne yeddi taxuttu wa lisaani yadlu walay sa yan xooli jihaati xidlu fu ma toll sama loxo mi bind waaye maa ngi tari ca kaw tari ca kaw laa ilaaha illallaah gisee ni mu naqaree boole nee su ci nekk lu dul julli du taxaw yaa ngi dégg sax ñuy wax ne rëbbkat boobu nga xam ne moo ko daa mu nekk ci wetam mhm. nee na mos koo gis mu yor kurus mhm. daf koo gisut mu yor téere waaw dana dana tari alxuraan fu mu toll boole koog mbind bi su demee ba guddi gisatul li muy def uh-huh. lim doon bind ci bëccëg gi lay tari lay yëkkati ca kaw day takk ndigg li eh, di tefes gi di ko yëkkati te ay daaj yu wuute uh-huh. daa wax nag ne bi ma ñëwee ba njeereem li ma gën a sant yàlla mooy daaj yooyu ma daa jàng te kenn fekke ko dul yàlla sama borom uh-huh. damay jékki-jékki rek dégg ab taalibe di jàng daaj boobu te du ma xam lu ko jox moo tax ma xam ne yëpp ci moom la jóge ci moom la jóge dëgg la waaw waaw am na daal yoo xam ne mm-hmm. hmm. déggu ma ko ci kër xëy na moom moo ma ko taw waaw moom laa moom laa juddoo waaw mm-hmm. eh, nag sax de bëriwul de ah, te nag am na ci bu ràññi ko de man xam mun maa jàng waaye am na ci ràññi ko de <laughs> bëriwul neexul daal loolu daal laal mën a xamal. <laughs> léegi na ci benn rek. Mm, mm, mm, ma jël xasida gi bu ko defee ci biir xasida gi. waaw damay dama dama koy jàng ba mu jeex. suma su def ko ñetti xaaj. waaw indi indee benn bi. Uh-huh. indi bi ci des indi bi ci des. incha allah. bismillahi rahmaani rahim allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa basirhu sallallahu taala alayhi wa sallama bi hadihi ziyaara wa taqabalha wa farrih biha axyaara amin ya rabbal alamin ashaabul jannati ilayka ya xayral bariyati salaam xadimika alladi kafaytahu almalaam ilayka ya xayral bariyati salaam خديمك الذي كفيته الملام صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب ربنا السلام هست مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام هست مقاما دونه كل مقام يا نور كل عابد سام وقام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من هباك بالكلام mooy benn بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام بشرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ذا تمام أنت النبي والرسول والهمام بك انخياد الصالحين بالزمام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أصنع احترام لك لدى رب الورى كل مرام لك به يا سيدي أصنع احترام جاد لنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي خير الأنام جاد لنا باخ تعالى عن منام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام نويت شكره عليك بكلام وخيرها يا ذا جوامع الكلام هديتي قس كرما بلا انسرام يا قائدا لي من إلهك المرام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 daaju suñ may bi nga xam ne mooy midaat yi uh-huh. waaye duñ duñ bokk nag ndax comme bi xeetu daaj yi waaw bii day boobu day ci tawil bii di rajus a uh-huh. Hmm. Uh-huh. sa'altu man saana li karim axsi wa tarkiya safa an la yarim sa'altu man saana li wajhihi al-karim axsi wa tarkiya safa an la yarim lam yanhuni iblisu fi layadi إلى جنان الله ذي الأيادي طرده الباخي لخير وانصراف وبتقدمي وعصمة اعتراف أيس إبليس الدعي فالكيد الله مني هاربا بالميد نفاه ذو الجلال والإكرام لخير نهوي بلا انصرام subhanallah macha allah jërëjëf sëriñ Saliou Mbacké ci njàngum xasida mu am solo moomu defe naa ni mbokk yi xam Serigne Saliou yëpp xam nañ ni wax dëgg yàlla xasida yi waxtu wu nekk yaa ngi ciy bégal xooli murit yi ci bépp jataay boo xam ne daje nañ fa waaye dafay mel ne xasidaat wax dëgg yàlla mën nañ yóbbu nga ko fu ne ndax ñu ngi seetlu waxtu wu yàlla dogalee nga dem baytulaayal xaraam gis nañ njàng mu am solo ma nga xam ne moom nga fay jàng bari naat ci adduna bi foo fi taxaw foo xam ni day mel ni xasida sëñ Tuubaa yooyu la fa yóbbu waaye bu la moom bu la fa yóbbuwul it day mel ni loolu moo cay gën a fes kon loolu mooy wane ni sa liggéeyu maam bi waxtu na yaa ngi koy wane waaye ndax sëriñ Saalihu créé na maanaam créé na daara joo xam ni day fas yéene defar ay ay saalihu mbàkke yu bari yoo xam ni danañ doon ay kemam waaw tubarkalla waaw loolu de du sax ne créé naa ko waaye créé <laughs> nañ ma ko <laughs> <laughs> waaw ndax yàlla dogalee ma jógee ci daara si ñam satu mhm. daa fekk booba suñu fàllu di ubbi am jële mhm, ca Grand Yoff ca mhm, mhm. loolu mu toll ci ay deux mille huit jàpp naa fukki at yoo xam ne ci daara ci foofu laa nekk dëgg la di fa jàngale di jiite ca jàkk ja julli ajjuma yeeg yëpp di déglu ndigal rek waaw fukki at bi deux mil dix-huit daal fekk boobu sax lu jiitu loolu ay jamono 2013 yooyu <laughs> am na barab bu nekk fële ca Kajoor Longoor Mbay ngay dégg xam naa ko baax waaw amoon naa fa barab boo xam ne suñ ci ndigalul suñ fàllu laa fa demee <laughs> sancoon naa fa <laughs> ba tàmbali fa sax dara ne sax tabax yi ñu fa jot a def ak yëpp waaye gannaaw bi yàlla dogal ñu jóge fa ci sabab boo xam ne moom xaw ma ko sax nag. ba di ko mën a leeral. gannaaw bi it eh, sëñ Modou Cheikh Mouhamadul Mountakha ci yéene bi am ci man. ak yaakaar bi am ci man te loolu nëbbuwut. ndax nëbbu ko. dafa fesal ci anam bare bare bare. yàlla daa dogal ñu ànd dem ngay. Cheikh Cheikh Mouhamadou Fadal suñ galas ñu gën koo xam suñ galas kaltoom bis bu mu fa doon def mu suñ bi mu see ne ma na nga ñëw ñu ànd bañ demee bi jàll ci biir man sax damaa toog ca ca rek ne suuti mu yónnee woolu ma ñëw na njabootu suñ Fallu yaakaar naa suñ Basa nga fa woon ak suñ Maam Mor am na ko yàlla dolli ngërëm ak leer ñeneen ci wàkk sëñ Fall yi sëñ bi ne ma sëñ Fall mii kat daf maa jox ab barab bu mu defoon fële ca Kolobaan ngir sëñ Tuubaa ma bëgg nag joxaat la ko nga liggéeyal ci sëñ Tuubaa seeraloo naa ko ñëpp alhamdulilah dañ ci jógee it lañ fa njëkk a def ci moom ab sëtam di sëñ Moussa ak benn ak jarbaatam suñu seex Abdou Latif ne leen damaa bëgg ñu daal ci jublu nu gën a gaawee fekk na boobu sax jotoon na ma ubbi daara ci kër gi yor fay gone ñu tàmbali di fa di fa jàng ka jàngale ndax nit mënut def lu mu xamul dëgg la te loolu dong laa xam dëgg loolu rek lañ ñu lañ ñu toqee mhm. moom moom lañ ñu wanoon te si ñoom sa saa yu ne dama koy koy wax ne ko man de lii sama yéene mooy fas naa bu ëllëgee yomal xiyaamati mhm. ci kanamu sëñ Tuubaa mhm. buy seere sa liggéey mhm. da nga fekk li nga defoon ci man lu ca wàññiku lu ci yokkut du wàññiku loolu laa la fas yéene fay alhamdulilah ko defee nag bi bi fee xas xawee noppi ci lañ fas sañ loolu mi ngi toll ci yaakaar naa deux mille dix neuf nii loolu am na solo euh, mu mel ne ci parcours Serigne Saliou gisaan nañ ni xaw ma loolu xay na liggéey yi am na da xëy na daa sotti ko ci beneen côté waaye gisan nañ ni suba gu nekk. amoon na mbind moo warlu woon daan ko bind ci mbind Sëñ Tuubaa yi loola. noo ko daan saytoo. waaw ndax nag maanaam ñun ñu ko daan jottale rek sax. demal na ba jaaxal nu waaye waxuma la nag ko ñi ñi koy jottaliwaat. waaw. Mhm. loolu moom ko sax ba tey ba fi ne nii mu mhm. ngi ci. ko tàmbali woon ci yaakaar naa deux mille ndax bi suñ mun di doog a toog rek la uh-huh. def bi ma ñibbisee ci dëkk bi ñibbisee fii uh-huh. am na jóge naa fee uh-huh. ma def fajar gu jot ma dem julli jee jë suñ moom fajar gu mooy génn ci ci jàkkaam moo ko defee ab diir muy defee saa yu jullee ba noppi ñëwal ne ma naa jàll si ci biir mu xel li ma kafe waxtaan ci suñ tubaa tuuti def te ba benn bis ma xalaat ne war naa am laneen beneen liggéey bu dul ñëw di julli si nii rek naan ko fi dem mhm. ci laa def na kon léegi may def bisu sët ma bind ak xasida di ko def ci fegg yi nga xam ne moom la mhm. sëñ bi daa def loolu sëñ ma mhm. su may julli si indaale ko ma def ko wax nga xam loolu istimraar la mi ngi wéy ba tey waaw mi ba ba fi mu ne nii moom sa suma yéneen mu dakk incha allah waaw macha allah loolu ndax sëriñ bi am foo ko dajale wala wenn fekk nga ko ko set lay doon waaw fekk yi nañ koy defarlu mhm. moo koy dogal maanaam mbind mi laa bëgg a wax dama ko daa defarlu mhm. waaw fi ne nii buñ ko mujjee xool te mooy bis bu xasida bi mu njëkk a bi woote mhm. matoon na ñetti junniy fegg. ñetti junniy fegg waaw. Ah. nga xam boo ko bindee jébbal bari lañ ko dajale. Mhm. gannaaw bi sax dafa maa wax ne ma nañ ko yóbbu isbu tarxiya. Mhm. mu dencal ko fa. Mhm. bañ demee suñu Yuusuf. daf ko wutal saalu boppam carrément. boo xam ne ñu dénkaat ñi ko sëñ bi dénk rek la ñu ñu def ci ak xariñ lool. bi këru xasida yee noppee yaakaar naa ci ñoom yéen fi njëkk yóbbu ca la bokk. macha allah bari na lool léegi léegi nag. sëñ bi ci bopp mooy bëgg moom. buñ ci indi. bala ko bala ko yóbbu da koy jàng ba noppi waaw da koy dajale léeg-léeg sax ma dem mu ne ma raw nga ma tuuti de waaye dinaa la dab waaw macha allah tubarkalla loolu am na solo léegi nag nga xam ne daara bi mhm. daara ji ubbee léegi nga xam ne mënatuma di dem fajal bi mhm. te léegi sax kii mayetu ko mayet maa ci ëpp aram si ajjuma rek laa fi ñëw ma mhm. koy dajale li <laughs> ko moom dama bind waaye bu ma bu dajalee ba alxamis wala dara <laughs> su ma ñëwee loolu am na solo xam naa damay ñëw ci question bi nga xam ne mooy euh, tëj mission bi mhm. mooy sëñ Saliou kan mooy idolam maanaam kan kan lay roy maanaam kan la teg ci kanamam daal nga xam ne moom kii moom mhm. da ko gund ci aw doxanik aw melokaan moom lay roy moom na teg ci kanamam sëñ Abdou Lahad moom mhm. bëgg naa ko naw naa ko te it moom mooy koo xam ne moom saa yu ne mi ngi sama xel moom saa yu ne rek. Mhm. saa ju ne. Mhm. mu ngi ak allah <laughs> yaakaar naa moom mhm. moom allah <laughs> am na solo te mel na ni ku la xamit xam na loolu ci yow. Mhm. waxuma la euh, jëmmi baylaat bi nga xam ne ñëpp moom lañ la xamee. waaye léeg-léeg mu def euh, sëñ Ablaat noonu nga xam ne noonu la daan kaalawoo. ba tabaarkalla macha allah waaye loolu defe naa ne du du du xarwa macha allah ñu ngi sant bu baax a baax. li tax mooy jàng xase di suñu mbaax dama suñ tubaab dane woon fi mu koy jànge maa nga fa donte am ñag la ku dikk fekk ma tey alhamdulilah damay am yëg-yëgu nag fu mu tàmbalee rek mu moo tax dama ko ñeme macha allah waaw ah, jërëjëf loolu liggéey bu am solo mel na net euh, waxtu bu nekk yaa ngi am yu am solo yoo xam ne yaa ngi koy génne ci tombi Serigne Touba yi loolu ndax da ngaa jékki-jékki di ko def wala ndax loolu suñ mun taxaa ma ko digal fi mu tàmbalee mooy dafa toog ak ak ngoon ni ak guddi am ku ñëw jox ko wenn kayit boo xam ne suñu Alaaji Mbàkke ko bind waaw mu ci nettali xis ab xis bi suñu bu am solo ba muy jógee Jolof waaw mu woo ma ca saasa ma ñëw mu jox ma kayit bi noonu am ku ma ko jox léegi bi ñuy nuyoo uh-huh. ma xam ne lii lu war lu war a tasaaroo la uh-huh. ma bëgg nga dem ba ca isu tarxe ca isu uh-huh. ba nga wax ko waxin wu leer di ko tasaaroo gannaaw bi boobu xamagul sëñ alaaji bu ko xamee ba sëñ alaaji dem fa siyaare ji ko ci la ma wax ne man loo man ci mu tasaaroo rek def ko alhamdulilah tarkalla mm-hmm. lu mel ni baytu man sànn xayrillaahi dafa mel ni tasaaroo gu ci yow la jaare booba it moo moo moo moo jëkk-jëkk wooteel boppam mm-hmm. ci jamono boobu corona bi am rek mm-hmm. wooteel boppam ne demal te isu tarixee wax ko mu cëpp nañ ko saxal bisu set gën jaa néew ñetti yoon bismillah mhm. da waxaatal na ko man zanna xayrallaahi yox nii aw yadur fadaaka mhm. fi daarini du kaddin wadur mhm. waaw taarkal kon mi ngi noonu macha allah bu fekkee am na loo xam ni xëy na fàtte naa ko te am na solo lool ci li nga war na wax te xëy na sama xel demul ci nga wax ko door a indi sa kàddu yu tàggatoo ak mbokk yi xam ne ñu ngi seetaan télévision As-Samadiyya nga xam ne ci émission bu solo bii di jaar jaar eh, xanaa sant yàlla bu baax a baax rek sant bu baax a baax ni ni mu nu ci sëñ Tuubaa uh-huh. daa am loo xam ne nit mënu koo fàggu uh-huh. nit mënu koo fàggu uh-huh. nit du ko xam sax ba di ko mën a fàggu loolu daal ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax a baax a baax di sant it suñu kilifa yii waaw ni mu ko waxee sànq fi ñu jaar fu ne yërmande lañ ñu ëmbal ak bëgg ñu gindi ko ak bëgg ñu defal ñu ngi ci suñ tàmbalee ci suñu sang yi suñu waajur ci boppam suñu sang yi suñu saaliba suñu xam satu ba ñu del suwaatee ci moom uh-huh. diir bi def ak moom uh-huh. yëpp gannaaw bi it suñu Cheikh Mouhamadul Mountakha uh-huh. yaakaar gi am ci ñun dimbalam ci ñun toujours dama koy wax ne ko yow moom Mbàkke man mënuma laa ñàkk ndax bi may bi ma lay xam jaxasoo ji yàggul uh-huh. mais jaxasoo suñu mu tax yàggul uh-huh. jiitu na tuuti ak toogam waaye yàggul dëgg la ak fajar rek laa fa demoon julli nii ba nag jàng xasit boobu sa jàpp ma ne daa ko gis uh-huh. ñu jàngee ba mu leer may dem ñu ne woo ma ne ma nee na nga nee na nga waaw nañ fi lu bari ci Sëñ Tuubaa bari wax na ma yoo xam ne gis naa ko fi mu ne nii macha allah waaw waaye dama ma koy wax ne ko man bi ma lay xam sànku laa gënoon a jege ci defar ndax boobu ñu ma gis ñëpp kenn soññ ma dañ ma yéem rek. waaw ah. waaw yow nag da nga maa soññ te waxuma dara. si ah. <laughs> macha allah. Mm. jërëjëf Serigne Saliou Mbacke xasida defe naa mbokk yi ni ma leen ko diggee woon am na. Mm. sëriñ gi leer na. Mm. ndax ci ñaari wajur sëriñ la bàyyi ko. Serigne Saliou Guèye wajuram moo ko tudde tudde ko doomi Cheikhul Khadim ji ci njabootu sëriñ Touba gi. xasida géet ndaa takk ndigam di ko jàng ba ñëpp mandargaal ko ci xasida kon defe naa loolu mooy jaar jaari Serigne saali Mbacke xasaayit yàlla na suñu borom defal dégg ak topp mbokk yi kon ñun ñi bëgg lu ñu roy am nañ lu ñu roy lii mooy seen émission jaar jaar maanaam teeg Serigne Djily Bousso ci caméra bi mhm. di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu defal na tawfiix waaxiru daawaan alhamdulilahi rabil alamin wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu seen mi ñaanal sëñ Tuubaa sëriñ bi suñuy gaay yi ngi noo ngi nii sarax noo te jàmm ak teraanga ko yóbbu suñuy gaay yaa ngi nii tawal bu dal xel bu tooyal lu woo xas de والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا